que quand même euh, euh, ñun ak France dafa bëgg lu ñu bokk ak bëgg lu wuute d'ailleurs bon mais boo leen di ànd da ngay seet côté yu gën a baax rek te côté aada ak cosaan boo xam ne moo ñu boole fii ñu ngi liggéey ak ñoom bu baax a baax euh, musée des civilisations noires boo xam ne war na ubbi 6 décembre bu soobee yàlla ñu ngi liggéey ak musée français yi bu ci gën a mag ci côté suñu aada mooy bu ñu wax Kébé Rally am nañu ak moom convention bu président de la République demee foofu en 2016 je crois c'était en décembre 2000 non 2017 am nañu convention aussi avec euh, beneen musée bu ñu wax le Havre ñu ngi liggéey aussi ak euh, musée euh, de l'homme collaboration yooyu nag mooy xam nga musée dañuy wone am na lu bëri yoo xam ni ñun ñoo ko moom mu ngi foofu nuñ ko jëlee setul bu nekk yenn saa yi setul parce que ay butin de guerre la euh, butin de guerre yooyu xam naa saa yi président Macron nee na il faut ñu xoolaat ko pour mun a dellu Afrique donc am na benn commission bu bu ciy liggéey ak suñu benn compatriote bu ñuy wax Felwine Sarr euh, ñu ngi seet naka la ñuy organiser yenn bagages yi mun a dellu si ñun mais à part ça euh, comme ni ma ko waxee fii ñun suñu vision suñu gis-gis si bi. du du du musée rétroviseur nga xam ne dañuy xool ci gannaaw rek non non euh, euh, histoire euh, c'est un recours war nañ ko xam mais il faut ñuy xool fu ñu jëm ak lu ñu nekk tey donc musée bi tey toppatoo loolu yëpp moo tax du ñu def seulement lu ñuy wax ethnographie dañuy def art contemporain mais aussi dañuy def prospective di gëstu si yenn question yoo xam ni dafa am solo ci temps yu nekk. voilà donc euh, loolu yëpp tax na daal je pense que ñun ak euh, suñu mbokk français yi surtout ambassadeur bi vraiment yàgg nañu di waxtaan ci loolu et je pense que loolu moo tax mu proposé président Macron mu décorer ma Légion d'honneur euh, waaw. waaw c'est-à-dire que xam nga musée yan musée yi boo xoolee suñu musée yi ca gàttal kenn du fa ay touristes nga fay fekk ak euh, petit bourgeois yu mel ni yéen <laughs> donc sénégalais yi sa sa suma suma ñoom yaay suma ñoom papa suñu kilifa yi duñ fa ne parce que lu ñu fay wone gisuñu seen bopp ay bant lañ lay woo ay fétiche lañ lay woo gars yi bu ñu de dañ ne affaire xërëm la duñ dem euh, image boobu il faut ñu dindi ko pour wane ni que xërëm yooyu woon ci suñu cosaan la bokk wane wuñ ko parce que dañuy xërëm dañ ko wane seen ci la bokkoon mais musée bi mënul yem foofu suñu musée yëpp foofu la yemoon ñun dañ ko bëgg a yëkkati foofu wane lépp loo xam ni xeet bu ñuul def ko tabax ci àddina depuis euh, tuuma yi nga xam ne suma suñu maam ñun ñëpp jusqu'à production contemporaine bi c'est-à-dire musique urbaine yi art plastique bi li ñuy def ci biennale yi ñu wane ko mais aussi ñu jëm a góorgóorlu euh, yenn yoo xam ne euh, ay aada yu fi am la ay ñoom ay Gumbe ay ñoom Yela des choses comme sa ñu koy indiwaat ci biir nit ñi di ko gën a gis di mën a waxtaan ak ñu koy def di mën a jaxasoo ak ñoom dina mën a jàppale aussi pour ñëpp mën a dem et dans tous les domaines loolu la ñuy def sa à dire que xërëm yu passé léegi ñun am nañu islam ti christianisme mais dañ koy wane daañu wane ñun suñu islam sax naa ngeen a wax ak islam waxabit bi ñun suñu confrères yi dañ leen di sopp parce que ñooñu ñoo ñu dimbali ba Sénégal dafa pacifique donc appropriation ab euh, islamique boobu ñu am islam noir boobu dañ koy wane si musée bi ñu ngi waxtaan ak kilifa yëpp pour ñu seet naka lañ koy wane pour nit ñi gën koo xam parce que c'est vrai que bon ñun on est des musulmans à quatre quinze pour cent mais est-ce que ñëpp xam nañ lépp il faut ñu wane c'est-à-dire que ñoom Cheikh Amadou Bamba lu ñu fi def jàlloo yi ñu fi def il faut ñu wane ko ñoom El Hadj ñoom ñaas Baye ñaas ci xalaat ak ci bind ak ci xeex li ñuy def il faut que ñu wane ko ñu parce que suñu islam du islamu naak il faut faire bref ça n'a rien à voir avec les c'est des savants sénégalais ñoo jël islam bi tabax ko garder valeur yëpp yu nekk ci islam mais tabax ko ci suñu aada ak suñu cosaan voilà donc loolu lañu yéem a wane suñu musée bi donc duñ def musée boo xam ni rétroviseur la da nga ñëw rek di ne ndeysaan non bëgguñ nit ñi wax ndeysaan bëgg bu ñu génnee foofu ñu yëg seen bopp et euh, être prêt à à avancer. république française président Macron moo tànn ci kenn ci doomu Sénégal yi koy Amady Bokoum li ma ci boole man maay ministre de la culture Amady Bokoum mooy directeur général bu musée des civilisations noires su ñu koy distinguer di ko décorer. dama fi war a taxaw d'abord féddali kóllëre ak moom ak woon ko suma cofeel ci moom ak ci li muy liggéey loolu ma fi ni tey may am ci cawarte loolu dégg ngeen ni ambassadeur bi France wax ku man liggéeyam la scientifique bu mag la ku disponible la ku man li muy def moo tax ma taxaw fii loolu woon ko tey suma cofeel ci moom ak également suma reconnaissance ci liggéey bi mu def waaw na nga gisee liggéey boobu nga xam ne def na ko yow mi nekk jëwriñ bi wax wàllu aada jamono ji nga xam ne moom lañ koy def. xëy loolu ma fi gën a tax a indi tax fierté bi ma ci am musée des civilisations bi nga xam ne moom la yore nga xam ne depuis 1957 lañ ko commencé di euh, tabax ci xet yi ñu ko tabax ko physiquement moom mu mottili ko def fa war a def lam fa war a def ñu war ko inauguré le 6 décembre li ma leen mën a wax mooy tey jii ñu toog tey du ñu woote mukk ngir affaire bi parewul ba sotti na même bu ñu waroon a reporter parce que am na lu sottiwul nañ ko reporter loolee moom bu leen ci am jaar du ñu ubbi mukk doomu Sénégal ak doomu Afrique di am gàcce ci li nga xam ne ubbi nañu. nga wax ñu xam nga yàgg nañ di wax ne doomu aadama fii la cosaanoo ci Afrique loolee am na lu ko firndeel danañ ko wone ba firndeel ko ci ay jumtuwaay. yoo xam ne dañ ko wane nee nañ itam Afrique civilisation bi daje na ak yeneen civilisation jaxasoo ñoom ba tey dañuy yaakaar ne civilisation yooyu fii lañ juddoo lu ci mel islam am yoo xam ne dinañ wone naka la africain duggee ci l'islam duggee ko ci biir chrétienté jël ko ba nga xam ne def nañ ko seen yëfu bopp gën ko man gën ko xam daanaka presque fa mu jógee loolu beneen partie boo xam ne tamit danaan tey Afrique mooy bésu Afrique la dañ fa wane ay xarala yoo xam ne ay créateurs africains yoo ko def wane fa ay jumtuwaay yoo xam ne yi képp ku fi dugg di doomu Afrique boo génnee da nga am cawarte ci Afrique da nga gën gëm sa bopp da gën a naw sa bopp gën a fonk sa bopp yaa ngeen jëf